nga xam ne ñoo ca gën yonent yooyu yàlla daf ci yónni ñetti téeméeri yonentu ak fukki yonentu ak ñaar boobu Moustapha ñëwagul moom moo war a nekk trois cent treize ñetti téeméer ak fukk ak ñetteel moo war a ñetteel moom mu ne ñoom la mbiyaaw yi ñu mu leen di ñoo ko fi jiitu woon mu ne jiitu gi sabab sabab bi mooy dañoo ñëwoon jiitu fi Moustapha da xam le kan mooy Moustapha mu ne seen jiitu gi bi jiitu xam la ko moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ko sabab mu ne waaye jiitu góole jiitu saayar la de mu ne waaye yàlla léppam Muhammad la njëkk a xamal ci lépp ci lépp lu xamal. mu te yonent bi waxoon na ne nekk naa man yonent bi nekk naa yonentu te boobu suñu maam Adama bindaguñ ko mu ngi ci diggante ndox ak ban mu ne kon bu ñu waxee ne trois cent douze yonent jiit nañ ci Moustapha loolu waxin la de mooy Moustapha moo njëkk moo mujj. mun ndax yàlla dafa indi dafa indi yonent ñu jiitu fi rasulullah ngir xam le ci ngëneelu Moustapha gi balaa mooy ñëw mu ne boora xool ci yonent yi ki sa mel ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam demoon na ba jege boromam ba jàpp ne sax jaxasoon ak yàlla digganteem ak yàlla dara dox ca Moussa ko ci yàlla nako arini unsur ilayka mu ne ko dama mo yow yow sama borom man musa dama la bëgg gis jëkkëram dama la bëgg gis xam yow sama borom ay kan borom bi ne ko Musa, de di may gis de mono may gis musa lan ne lan su lay dàq ci grand mère mu boo demee ca bayaan daq ak xarfu tëbit la mu ne lan daq ak tëbit lay daq ci bayan mu ne kon fofu lañ cey déggé Musa du gis yalla ci géej dundam ci yalla ne bi ñu ne moo tax yàlla ne ko lantaraa nii de mu ne ndax lan lepp lu lan da loolu dafay sax mu ne bu daakee ron benen xaraf bo xam bokku ak lan ñu ne kon de xëy na Moussa xam na fu mën a gisee boromam ba ko yàlla waxee loola mu ne ca bànneexu waxam moom musa ak boromam ñu dem ab diit ba nga xamee ne ak yonent mu ngi ba bëgg a feeñu ak nu ko watu ci am tukki la ko fekk moom Moussa mu ànd ak soxnaam di dox guddi la mel ni lëndëm ak oxset bañ demee ba a kanam ab sedd jàpp leen ñu gëlëm nekk ci xàll bu lëndëm xàll bu raglu mu dem ba ca kanam moom Moussa moom ak soxna si ñu taxaw ci benn ron garab Moussa gis benn leer ca kanam wax soxna si ne ko a dem fële te di safara ñu jaaru ci ceede bi mën a wàcc mu ne bañ demee ba jant bi génn ba mu leer nañ ñi mu ne ko buñ demee ba jant génn bu lee ñu door a continuer suñ tukki mi ñu nekk mu ne Moussa booba ba ñibbi si mooy ba mu jógee ci sàmmam ga la ñibbi xisay ba dañ koo dagg pour ngir kàttal wax ji rek mu ne Moussa ba mu demee ba ca la foogoon safara yàlla ne ko simmil sa daal yi yow Moussa faxlax naa layka innaka bil waadi muqaddasi tuwa wala ko borom bi wax de mu ne ñu ne Moussa da doon wuti leer lum leer loolu da doon wuti moom Moussa leer kam doon wuti gam fa fekk moo gën a foor leer ka ko taxoon a jóg ndax moom leer safar la doon wuti yàlla jox ko leer ak lu ba wut yi bokk yàlla joxe leer googu moom Moussa yàlla jox ko leer mu nekk lu ba wëtu ñu takkal ko garaabu yonent mu demaat ab diir yàlla feeñaat ko moo Moussa ci ab place mu ne fekk boobu Moussa dafa bokkoon ci ay mujisaatam ay kemtaanam yàlla dafa joxoon wenn xeet xëy lu ne lu ne la ci Moussa daan def. mu ne Moussa Buraan Samb. mu ne Moussa Buraan Samb caale bi dem ba gëmmentu bëgg nelaw. xeet yi ci boppam mooy dem sàmmi gàtt yi. nee nañ Moussa da sàmm. ba mu demee ba sonn da nelaw. esaat ñëw bëgg bëgg yóbbu gàtt yi. yi moo xeex ak ñoom ba yóbbu mu ne Moussa bu xiifaan. xeet yi soppeeku ndawal. mulek basur lep lep lep dan def mom musa su bëgg xex xéri lay xexé muy wo wé bam démé ba ca kanam boromam né ko wo ma tilka bi yaminik ya musa mune bo borom bi xam na hen la dé ndax yalla dara do dara dara humbul ko mune ko wo ma tilka bi yaminik ya musa booba moom borom bi xam na lu bëgg a xamal Moussa ci boppam Moussa daal di tontu borom bi ne ko ñu ne bànneexul loo waxi yàlla ji moo tax Moussa yàlla posé ko benn question mu tontu tontu yu bëree bëree bëri bëri mu ne téere yi nee nañ loolu Moussa def bokkut ci ak fasaa waaye bànneexul rek yàlla bànneexu wax ak boromam ji. moo ko yëbbee tontu yëpp bëri yëpp mun xam nga yàlla ne ko lan moo nekk sa loxo yow Moussa dana ko xaala hiya asaaya mu ne ko lii mooy sama xeet wi atawakkau alayha wa ahuusu biha ala ganami wa liya fiha ma'aarib uxraa waaw ñu ne yàlla benn laaj la ko laaj mu ne ko sama loxo bii de xeet moo ci ne boo ci loola doy na sëkk waaye xamul foofu de mu continué ko xëy na dama koy jëfandikoo dama cee sukkandiku dama cee fàqal sama gàtt yi ay xob ñuy lekk muy mooy gësam mu ne comme tey boo sàmmee boo demee ba nga xam ne ceebit jot na nga xam ne jur gi seen lekk dafa jafe nga xàgg ci genn garab boo xam ne la ngay sàmm bëgg nañ moo xam nag la wala xar. wala bëy wala gërëm wala lu mu mënti doon nga koy sàmm ba tey xëy na ko bàcc sax xob yi ca garab ga xob yi da wàcc ci biir a lekk loolu mooy wa axu su biha ala xanami mooy bàcc mu ne xam nañ ñenn ñu koy firee gësam mu ne waaye maanaam loolu la de mu ne ko ak yeneen yeneen xaajo yoo xam ne moom laa cay def mu ne wax nañ ne Moussa ba ne ko wax yàlla boobu. gannaaw ba mu jógee ci loolu téye na ko ñeent fukki fan yoo xam ne fu mu déggaate geneen kàddu dana wucc ngir wax xolam jëm jógee ak timité kat mu ne kon nga xam ne bànneexu waxi yàlla dara xewul ak moom mu ne ngir nga mën a xam nga ne loolu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu indi misaal noonu. muy tam Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bam rañaanee ba fa soob boromam yàlla gisee na fa ak moom mu ne yonte bam rañaanee mu ne yëpp d'accord nañ ne ne bam rañaanee gis na boromam subhanahu wa taala mu ne yonte bi nee nañ giir dundam ñetti yoon gisee boromam mooy keroog bam rañaanee gis na boromam sifam ko sobe mum yalla mu ne moto ñu yalla am place mu ne moto do wax ne gis na ko ci place sangam da nga ko ñu tigi da nga gis na borom rek fan la ko gisee fa ko neex mom yalla mu ne yoonte yalla musa mu jaara ak boromam ay parap yu bare bare bare yo xamne fu mu jaati mom mo musa mo metti ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñëwee loolu xeef ca moom nga dem ci ku mel suñu maam Ibrahima Xalilullah mu ne ba nga xamee ni nga bëgg sànni sa sawara wa mu nekk fa ab diir Jibril ne cëng wa ñëw ci moom ne ko yaa Ibrahima ñaanal sa borom mu xetali la balaa nga yàlla ci safara wii nga ne. mu ne ko Jibril sama waroon xam jim xam ci li ma ne doy na xoote walu de mu ne ndax kooku mooy xaalimul xay bi wa sahaadati mu ne ko kon kooku du ma ko ñaan dara ci li ma a mu ne ñëwee ba Jibril da noppet suñ maam Ibrahima yëre yi mu ngi commencé lakk mi ne gànnaaw Ibrahima ci la tàkk tàkk ba commencé woon te yàlla wax Jibril ne ko ne ko Jibril safara yi bu si dara dara lakkee Ibrahima su boobaa yow danaa far sa tur yow Jibril ca xajara Jibril mu ne moo gën a gaaw lépp luy gaaw mu ne bokkoon na ci malaaka yu mag yi moom Jibril donte xam nag malaaka yi ko ëpp moom Jibril ñun ndax bul fàtte ne yonent bi ñaanoon na ngir gis Jibril wax na ko ko ay yoon Jibril na ko ñaan laaj ko sa borom bu la mayee ndigal ñaan da nga ma mën a gis de mu ne ngir nga mën a xam gaawaayu Jibril mu ne ko bu sa borom mayee ndigal nga gis ma yow Moussa da nga ma mën a gis de ñaanee suñu borom mu ne boo ko Moussa ñaanee suñu borom yàlla may ko ndigal jibril ne ko yow rasulullah fan nga yaakaar ne danga ma mën a gisee man jibril mu ne boobu yonent bi mu nga màgg mu ne fu yonent wax rek jibril ne ko foofa dafa tuuri de man xajuma ko man jibril de jibril wax yonent wax ba tudd xarafa jigéen la ko woo baax na waaye na nga teel a xëy na nga fajaru balaa fa kenn kenn di mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fajar la génn màkk ba mu demee ba jub Arafa mu seen Jibril daanu xam mu ne ba mu gisee Jibril dafa tiit mu ne ndax Jibril yàgg naa ñëw si yonent bi.

ñeneen ñi ne juróom-benn téeméer la. te ñu ne mbagg yi ci àddina. yooyu benn bi xajul ci àddina bii ñu ne. mu ne ndax bu fàtte ne. yonent bi keroog ba mu rañaan. bokkoon na si la ko Jibril baatale woon. ak lam ko ñaanoon. na ko boo xàggee. nga wax ko sa borom. ngir man Jibril ma defal ko sa xeet wi. mooy bu ñu jéggi siraat yow ma xeexam. man ci biir naa tàllal sama mbaggam day joor mi sa xeer bi jaar ci jéggi siraat du ko yëg mu ne loolu ci biir bàttalaw na ko Moustapha ne ko boo xamee sa borom na ko ko wax mu ne yonte ba mu demee ba gisee mu ne ko mu ne xam ne borom bi subhanahu wa taala ko fonk yonte sallallahu alayhi ja ja jaaraati la ko Jibril waxoon. mu ne ba mu ko waxee yonent bi jaaraati Jibril la ko Jibril waxoon. la ne ko. may naa la ko de. mu ne kon képp koo xam ne bokk nga ci xeetu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yi. te góorgóorlu ci la mu nekkoon. da def comme saaru tànk yi comme saaru daje yi nga xam ne koy def. da wax ci ngëneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. da tagg yàlla. atagga nit ña baax ñi mu ne bu kerge yomal xiyam ci ñooñu Jibril ta tàllal magam nga see jaar da jàll ci ngeen bokk mu ne wéte ba mu da ba juba Arafat mu siin Jibril mu nga taxaw yonent bi dafa daanu xam de Jibril moo daw ñëw sa xam ne meloo doomu aadama dimbale ko ba mu ximmali ko mu ne ba mu ximmali ko mu ne ko yaa Rasulullah yow man Jibril ngay gis te xam mu ne ko kayfa mu ne ko kayfa lawra ayta Mikail lawra ayta Mikail yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow Moustapha kon man Jibril man ndaw mi ngay gis mu ndax Jibril ku xeebu la ci Mikail mu ne ko yow boo gisul Mikail foo jëm mu yonte bi ne ko mu ko yow Jibril Mikail moo la ëpp mu ko Mikail du sama morom moo ko Mikaayil Moussa du sama morom de mu ne ko Mikaayilu diggante paxe bakkan Mikaayil bi ak tuñu kayoon mi man Jibril maa ngi koy naaw juróomi téeméeri at te du ma àgg mu ko suma jógee paxe bakkan Mikaayil jëm ci ñoom kaw ma di مُتَنَا بِيَغِي دُمَحَكْ مُتَ جِبْرِيلِ نَنَا بِنَّا مَكَمِ خَيُّ سَنَكَا بِيُّنَي بِنَّا مَكَمِ تَجَحَمْنَا تُرُوِتِي مِرِي مَكْ مُنَ جِبْرِيلِ تَي سُبُقَرْ وَجْ سَنَكَا بِيُّنَي مُمَلْنِ گِجَلْ سَتَانْكِ بِيَو بُقُّ دُقُوَ چِبْبَخَمْ مَلَكْتَان نَمْ تَنَّاكَ آيَ جِبْرِيلِ gaawaay mu ne kenn mënu ko misaal mu ne kon dañ see xamee suñu borom a koy dégg rek ngir tërale mu ne Jibril fam ko may na ko mu daal fa mbaggam ñu jaar fi ñoom xiir Moustapha yi jàll mu ne foofu bis la boo xam ne képp kuñ tinuwut doo mën a mucc mu képp koo xam ne ànd nga wëli yu kaamil ànd ak say ko murabbi xaqat bu keregee ñay jaar te magam ci ma jàll ca ngay bokk mu ne ndax bu sooy dafa ne lama daa laaw daahina li taahatihi bi akrami rusuli kunna akramul umami mu yàlla ba nga xamee tànn nañu ñun xeetu Moustapha ba mu tànnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lama kaana rusuluna akramu rusuli bi ixtifaari asaarihi kunna akramul umami mu ne loola mooy maanaam bayit bi mu ne li bu séyee bëgg wax ci gàttal mu tànnee yonent bi sallallahu alayhi wa mu gën ci 313 yam yónni nekk ci seen njiit. képp koo xam ne ci xeetu yonent nga bokk. koo xam ne ci xeetu Moustapha yi nga bokk. te gëstu la mu newoon. su boobaa yow yaa ñetti téeméeri xeet ak fukk ñaar yi jiitu woon Moustapha. mu ne kon nañ gëstu ji. mu ne ndax yonent bi. doomu aadama buy dox ci kaw suuf. ñu ne kii ab yonent la. loolu moom du ñu xam jeex na tàkk. mu ne ndax mooy xaatimu nabiyyiina wa imaamil mursaliin kooku Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo mu ne fekkoon yéen dañu ñëw ci gannaaw Moustapha ci doomam lay commencé mu ne ndax yonent bi xamut doom ja góor ja mu kalaf mu ne ndax dañ ne doom mu ne ndax dañ ne doom su màggee ñaareel gi si dana doon bàyyam te yonent bi doomam bu màggoon dana ko doon. mooy yonte yonentu la yoon dóor ñëw gannaaw te doom bu mat mu kalaf dana nekk ay yonte ni moom mu ne loolu moo tax yonte bi xamul doom ba góor boo xam ne mat na mu kalaf bépp doomam boo xam ne mat na mu kalaf kooku jigéen la waaye di góor mu ne kon nañ gëstu ji la nga xam ne ci la mag ña baax ñi nekkoon mu ne mag ña lañ newoon mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon mooy saa doon julli léegi léegi ci waxam mu ne xam na loo xam ne faw def ijtihaad mooy tax nga jot ci loola mu ne xataa saxaaba ya nga xam ne ñoo xam ne la yonent bi mu ne xam na si saxaaba yi ñoo xam ne lenn lenn ci ñoom jotuñ ci yenn yenn mbóot yonent bi lenn ci ñom jotuñ ci yenn ngóor yi waaye mu ne ko mel ci Seydina Ali mu Abi Talib ko ka jabar lo xam fit xam-xam ñor ko lool mu ne xaalis dafa tok ben bis dem ci yoonte bi nako nako man de musaba dama bëgg nga xamal ma kan mo yalla lool la bëgg nga xamal ma yow yéen bi mu ne ak Aliyun nimbere hon xam xam mu ne kon nga xam na xam xam dafa nekk ñaar mu ne ndax bu fekkoon ne xelmu sariyaati rek la moom xaal yi dindi ci moom mu ne ndax yot bi demoon na bane bu fekkee man Moustapha maa ngi nekk xam xam ne ana baytul xelmi mu ne xam ñu ko taawil ne ana madinatul xelmi mu ne waaye bu ci indi wér na waye mu teg ca ne waxal babu ha xam mu ne mu ne fekkoon ne moom ni ko xam xol la moom Moustapha wala muy te xam-xam kon de xali moy buntu ba mu ne kon ma ngay wax ne xali lebeur la duggu ber mu wax yonent bi ne ko moom xàll dama bëgg nga xamal ma kan mooy yàlla yonent bi ne ko ñu ne dafa ko jas bu ñu yonent bi dafa ko jas bu na ko jas boo daf ko jox baatut laa ilaha illallah ne ko uqudu aynayka faqul la ilaha illallah mu ne ko yow Aliou gëmmal sa ñaari bët yi mu ne Aliou gëmmu bëri ba bëri lëndëm putuus mu wax laa ilaha illallah ñim ba ko yonent bi waxoon mu wax ko mu ne teg yonent bi waxaat ko mu wax ba xàgg ca lim ba yonent bi soxaloon xaalis dal di gimmi yonent bi xam ne kii de lam doon laaj lépp lam bëggoon def naa ko ci moom bis ni ki tey muy xaalis yu mujj ne moom dafa bëggoon a xam la waxoon mu ne waaye raaytu rabba bi xayri xal bi fa qultu laa sakka anta anta anta mu ne xaalis loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon sàkk ngir ñu xamal ko moom mu jine gis naa waay mu ne kon kooku la ko waaye mu ne ndax loo xam ne yaa ngi ko doon sàkk ngir xam nga mujj gis ko teg sa mu ne gis ko weesu xam mu ne te loola secret booba mu ne lenn la ci li loo xam ne alaaji saxo bi wax mu ngi ko junji la mu ne loolu lépp lu ñuy gëstu ci la xam lu ci mu ne moo tax alaaji dafa wax wax yoo xam-xam mu ne ndax wéeti dafa bokk ci ak gàtt xam-xam mu ne lépp loo dégg donte gëmula ko demal nga laaj ci ji demal nga gëstu ji mu ne booy dégg di weddi laajte wu la gëstu wu la mu ne heure bu ne sa réer day gën a dooleeku waaye mu ne fekkee dañoo woon ni ba la dëgg sa mbir mi mën naa mujjee fu métti de. mu ne moo tax nañ jéem a topp suñu kilifa yàlla jox nañu ay seexul murabbiyu yoo xam ne mu ne la sëñ bi doon wax rek. bañ ko a góobal ci jotaayam ba mucc ci liggéey bi ñu ko doon góobalee mu ne yees ay moo saako waxoon na ne la xoon ci jox xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jogut fii sama jox boobu noonu la ko waxee mooy la ko waxee moo tax moom mu waxee ko noonu mu la la wax jox sama mu ngi ci seen jox yi mu ne waaye képp koo xam ne xam nga ak soobu ak mu ne su boobaa دفعي من دقيت إيران تي في أكسهابة يا موي دقيت مم هاي باوسا هو أتاي دني كرون لقيل تروك من عندك بني لن يكون تجوا كبير تي في من سوى جوك من هاي باوسا هو لن يكون تجوا كسهابة يا مكسيات جوكيين من هم نيو خم نيو نيو جمارة ما هو أبدا نجس تجوا كرب من موتا مهيا فلان لنكو naan lan la woon si jox ko yonent bi joxul fi la woon si tamit joxe saa mu ngi seen joxe yéen mu ne te loola ba tey dafa gën a tasaaroo mu ne mën nay wax ne su fekkee ba ko doon wax benn loo xoon tey kenn mënu koy lim ngir bëri mu ne kon léegi gëstu bi léegi la gën a yomb waaye tamit léegi la gën a mu ne ndax bëri na foo ba foo koy fekk mu nga fa bëri na foo ko foogut fekk mu nga fa bëri na foo ko foog fekk ndaw foofa de mu ne kon loolu la ca a dimbali nit yàlla rek moo la mën a gindi waaye mu ne waaye bu ñuy gëstu sonn bëri na la loo xam dafa namoon a jafe yàlla ci yërmandeem gi dana ñu ko yombalal de yàlla ñu yàlla dimbali yan yàlla sansal nañu. li nga xam ne mooy suñu sens te mooy yoon wa nga xam ne moom la Mawlana aaj baaw saa waxawoon nga xam ne ci la tegoon képp ku nekkoon gannaawam moom la la woon yoon moom mu ne yàlla yàlla def buñ ko wàcc abadan buñ ko wàcc càmmooy buñ demee ndeyjoor buñ alièr bu nekk rek nañ di avancé ca kanam mu ne xam na ne aj baaw sama a mu tegoon tànkam ba teg fa sa du yomb de mu ne waaye nañ fexe képp fu mu dëkkoon bu yëgatee ñu dëkk foofu leen mu ne bu ñu noonu dañuy réer de mu ne kon du réer si àdduna gi de mu ne ndax nit boo ko toppee donte mënoo koy jot mu la raw mu ne ndem leer la mu sol yëre yu weex tar nga topp koom say bët leer. ngay waaxu mu ne donte rawee na la moom benn kilomètre fexeel jéego moom bu mu génn sa yoo sa jéego yow mu ne su boobaa ko ëpp noonu la mel de mu ne ay baax sax war nañu yoon wi teg nañu si yoon wi lépp lu nekkoon ca moom joxe na ko fi de bàyyi na ko ak ñeneen ña ni moom mu ne kenn ka ne ki nga xam ne ñoom nga def ñu nekk sa buntu ci yàlla mu ne ndax arbaabu tarbiya buntu yu bëree bëree bëree bëri la du benn du ñaar du a mu ne dafa mos dégg ci benn waxtaanu xel bu mu taxaa mu taxaa wax ne waxu na ñëpp dañuy ñëw nekk seen sëriñ moom xel bu mu taxaa mu ne ndax moom ba muy gis moom mu ndaxaa dafa fekk sëriñ ne fi ànd ak seen taalibe yi da liggéey mu ne kon moom mu ndaxaa mënta ñëw ñëw nekk taalibe moom mu ndaxaa mu ne waaye mu moom soo dajee ak moom na ko xormaal rek buñ ñàkkee kenn teggin bu si sëriñ diw mooy diw diw mooy de mu ne coow pënd bi lu mu bëri bëri bëri su wéyee mu ne wallaahi ñu ne seeti mbaay mi ak ne ci oto ya ak ñu avion yi ak saxaar yi demee de mu ngi mi yëpp noonu kese la kat kenn ku ne foog ngay ne ci avion muy waaye fi bool lay dimbale mooy góorgóorlu rek yal nañu yàlla dimbale sàmm ñu yal na yàlla xiir ñi ci bëgg nit ñi baax ñi yàlla bu ñàkkee kenn kenn teg yi mu ne képp ki ndajeet yàlla nañu ko mën a jox xorma diggante taalibe bi ak sëriñ nu mel mu ne mu mel ni jigéen ak borom këram mu ne jigéen ja normal benn jëkkër lay am. moy jigen bu ko defé waye teew goor ko mo nga gis dang ko sukkal dang ko cer mune daw dafa dem magal touba mune genn kelepa ci touba ñu dañ ñu dañ ñom ñaar na yoante mune koko xamone ay baw sax la mune bañ demé am ku ne ko ci de dañ ay baw sax la mu pesante ko mom waji kontante lol lol mu ne jigéen benn jëkkër laay am mu ne waaye nag réew góor goo romb mën nga koy sukkal nuyu ko mu ne kon ndax yow xam nga li ma bëgg a wax mu ne ko waaw mu ne ko ñëw kii nga ñëw fii taxul laay doo murit de mu ne ko waaye nag ñun la rëy rëy si ñun la te mbir mi noonu la yokkoo kat mu kontaan ci lool. mu ne kon su ko defee bu ñàkkee kenn kenn tegi mu ne ku ne sa ngay fas ci sa xol bi sa ngay wóolu sa ngay gëñ ne sama sëriñ moo gën ci bépp sëriñ mu ne walaay fekk moo gën de mu ne ndax la ma defal beneen sëriñ defal la ko kurut moom ndem naxul la moom sëriñ ba nag mu ne sëriñ ba a naxul la moo la gënal ci mboolem nit ñi. mu ne am na benn waaye moo tagg sëriñam dana ko bëxru na bi yu naa xemula ak kenn ci xeet yi motu mosa bàyyi man jeex mu ne ko buur moom ku la gën yow mu ne ko loolu benn waaye nag ko ko mos a laaj mu ne ko kooku la wax la wér la de mu ne ko tax kooku la mu ko defal ba mu wax ko loolu yow bu la ko defaloon yow mii dama ko laaj man ngay wax la raw la mu wax moom mune ndax kenn ko ne sa sëriñ dem na xulla la ngay wut ca moom sëñ ba bu la ko defalee su boba loo ko wax moom sëñ ba garab boo ko mën ta jox burul garab nu ba wut xeyo na ko mu ne ndax ñu kéréer nga gindi ko teg ko ci yoon wala ka gëlëm nga xetli ko won ko yoon wi mu ne kooku kenn gënta xeey ci ka ko dimbali mu ne booy wut ku la dimbale boromu kóob ku ne sa xol bi leneen mu ci mu ne nañ góorgóorlu ci fonk suñuy sëriñ lépp loo xam ne lépp loo xam ne mu ne ay baaw war a faral waxoon ne lépp loo xam ne maanaam du ngeen ma ci dégg du ngeen ma ci dégg man baawu bu leen nangu yéen it ma dégg leen ci mu ne am na benn taalibeem bu doon jàng keneen ba mu koy xeeyu muy ñibbi daf ko wax ne bokku ci sama njaboot gi man baaw saaw duur mbéy mooy nga toog caaxu séeri nekk sama kër dama ko dikk mu ne ko fépp foo lépp loo xam du ma ci dégg sama njaboot man baaw saaw fexeel be bu ma la ci dégg yow mu ne ko loola fekk yaa ci sama njaboot gi sa nga bokk boo nekkee ci leneen nag yaa ci gën a bopp waaye man génnewu ma la ci mu ne ba ci loolu mooy daw foo dem ay baaw saaw moo fa ne mu ne fépp foo dem loola moo fa ne muy mbirum fa yaatu lool tënku ci kenn tënku ci ñaar mu ne kaam may du wit borom may de mu ne lépp lu yàlla dogal nañ nangu loolu mu ne xam ne yàlla bool nañu wali yu kaamil say xumura bi xaqan moom la ñu yàlla jox mu yàlla fekk nag ñu xam li ñu la jox mooy lan mun ta na yaakaar ne li ëpp ci li ëpp li ëpp ci ñoom xam nañ loolu mu ne waaye xam yàlla daj mu ne ndax kaamil wilaayati moom la ñu yàlla booleel mu ne koo xam ne ku tumuranke la ci góor yàlla yi ku tumuranke la ni muy deferee mu ne moom ay baw saaxo xaajalewut doomam du taalibeem du taalibe keneen mu ne xam nga sëriñ dafay fiir lool mooy day teg su boobaa wóoluwoo sa bopp yow sëñ bi mu ne fiir loolu gis nga koy waral ñàkk a wóolu sa bopp mu ne waaye ay baaw saawoo ku mu mënta gis wóolu na lay dimbale koo mën a dof ay baaw saawoo wóolu na lay dimbale mu ne booy xool ay baaw saawoo ñi mu dimbale te duñ taalibeem man ngay wax ne ñoo gën a bëri ñi dimbale ñu nekk ay taalibeem. mu ne moom daf fi nekkoon rek suñu dimbali jàmm yàlla yi danoon sooy nit ñi pour ëllëg ñu mën a am ak texe loolu kese moo ko fekk ne moom ay a sax mu ne a ñun sooy xatal dafay mel ni yow li nga xam moom day mënoon na sooy xaat bi yëpp na sooy xaat ne bi kul ndem ñëw nañ ne ko fi jóg nga sooyee mu te yaakaar na koo xam ne jóg nga doon ba nga fa jógee ba dellu yaa ngi yàkkante dellu ñëwaat waaw mu ne loolu moom képp koo dajee képp koo xam koo xam daje nga ay baw saaxoo nga waxtaan ak moom képp koo xam daje nga ak moom képp koo xam ne daje nga ak moom nga waxtaan ak moom su boobaa dana wax ci ay baw saaxoo lii mu wax moom mu ne da nga dem foo xam ne sax jàppoon nga ne ñii sax xamuñ ci ay baw saaxoo mu ne nga jékkoon he seen googu yaakaar naa ne li ma defal man kese la ma defal jëlaal bi foog na ñu ko defal moom rek la si laaj foog loolu suñ muudu foog loolu mu ne fekk ku ne la nga foog loolaa wér de mu ne ndax dafa dimbale lu ne kon yàlla nañu yàlla fayal ma ay baaw sax yàlla nañu yàlla dimbali ñu ba ngeen moom xawoon ak liggéey ba newoon ñu mën koy mottali mën koy gën a yaatal ba ëllëg bi ak moom. mu ñu ruus mu daje ay baaw sax yàlla nañ siggi yàlla bu kersa dox suñu diggante ak ay baaw saxoom bu kersa dox suñu moom mu daje ak moom yàlla nañ siggi yàlla nañ bég yàlla nañ kontaan di jaay rasul sallallahu alayhi wasallam yàlla nañ yàlla ñu ko jeexee wala sallallahu alayhi taxawal ñu yàgg fee ñëw ñu koy bokk da bokk ci yaaba ji di ci waay ñàkk dërëm bu mën a dox yàlla na ko yàlla ful ci mbaaxam geeg yërmandeem bi te yaatam bi xoomam bi dërëm bu ne mu def ko mu nekk ay milliards yi milliards yi milliards mu ne yàlla mën na loolu te li ma xamee du jeex ko dara tamit nit ñi kese ñoo ko tax a jóg mooy teraanga àddina bii ak loo mën a gis damaa nekk ñëw tax a jóg sama ñu xeetu Mouhamad salaay salaam kenn kenn gëru ñu see xeet mu ne motal lépp la xeet waaye nekk na ko ci. yàlla ko yàlla wutal la yàlla ko yàlla fay ful ko. xaj ma jot lii yàlla ngeen ko gën a mën mu ne yàlla ngeen ne ba kenn ku ne ci yéen mën a génnee ci poosam faire dépasse bi yëpp keneen du sa bopp. fa nekk benn coow ci moom. لوجال جال دب من جاموري جال ياك جال نسا جال نتولي أكو جال نتولي أكو تنتولي أفرك كيف بكو كمرونو كتان تبيتاي جال نيا لا جال نك جدوم تسافر جال نك جدوم تسافر كيف بكو في تياو ولك بكو نتياو ولك تياو جال نيا لا فايلا فلكو بمبري بري بري يارن mu ngi yoonu jàll dem ak ku ne xaaju bi fu mënta indiwaale xaaju bu ñu mën a wax wala bu ñu mënta wax wala muy jàngoro bu ñu mën a wax wala bu ñu mënta wax ak xaaju bu mën a dox yàlla mi nga xam ne dara humbut ko moom mi nga xam ne mooy xaalimul xayb wa sahaada moom xam na lépp lépp lu ci yiw yàlla ko faj. yàlla na ko faj ba mu faju ké ku fi indaale feebar wala njàqare wala tiitaange wala lu mën a dox bala ngay jógee fii nga toog yàlla yàlla dogal na loolu luy jeex tag tag ci yow lay doon ak lu mu mën a doon nag mu ne yàlla xamut benn soxla bu mënta faj ci la matul minute xamut feebar bu mënta saafara ci la matul minute soxla yi moo koy faj. mu ne ndax soxla yi moom yàlla moo koy faj. feebar yi moo koy faj. ndax mu ne nam koy fajee mooy daf la jaar la ci yoon woo xam ne soo fa jaaree rek wér. mu ne kon tanti bii képp ku ko rono ko soxla. wala feebar. wala ak lu mu a dox. loo mën a wax ak loo mënta wax moo xam ne xalaat ko wala nga fàtte ko yàlla mi nga xam ne dara fàdduwul ci moom loolu yàlla na ko teggi wala mu faj ko ba mu jeex tàkk ci barke borom guddi gi te mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ngi jégalu ci kàddu yi kàddu yi gudd na lool waaye kàddu yi gudd la rek ak sant mu ne mu ngi jégalu ba baax a baax. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh